taalibe moom jëf dimbale sëriñ bi te dimbale sëriñ mooy dimbale ci tout tànk yi ñu ànd ak wér ku ci am ak wér rek yaa ngi dimbale sëriñ bi kon yàlla nañ ci yàlla boole jàppale. yàlla mi nga xam ne bii dara tëwu ko daal te man ko yàlla nañ ci boole jàppale yàlla nañu boole dimbale béréb bii ñu koy defee ki nga xam ne bi moom la suñu boroom dogal tey ji mu ne ci sunu kanam muy xalifa sëñ Amadou sëñ Modou Faye sëñ Moustapha Diaytu te sëñ Abibou mii nga xamee ne bii. moo na ko moo moo moo fi nekkal moo dox suñu diggante ak moom noo ngi ñaan suñu borom saxal ko suñu borom dolli wéram yokk fanam noo koy dénkaat sunu bopp it di ko sàkku ci moom ak ñaan lii ñu bëgg mu ñaanal nu ci sunu borom dimbale nu yàlla nañ ci seeg ngërëmal sëriñ bi ndax lépp lu ñuy def te mënuñ ci am ngërëmal sëriñ bi amul njëriñ ci ñoom kon ñoo koy sàkku ci moom mu ñaanal nu yàlla nañ ci dajee ngërëmal sëriñ bi yàlla bu ci suñu yaakaar tas moom it yàlla bu mu yaakaaram tas ci ñun ci li nga xam ne bii moom la dégg ñu wëlbatiku jóg di ci dox te lépp ngir rek lu am njariñ ci njaboot gi lu am njariñ ci askan bi loolu rek la waaye du leneen doxuñu ngir leneen maanaam léeg sax am na ñoo xam ne boo waxee bu sàggu nu ñu naan la ay ñoom de dañuy politique lislaam a njëkke politique sëñ xawaas xam na lu ñuy mën a doxal ci àddina te jaare luñ ko ci politique am ko kon dañuy politique politique nag bu jëmee ca aar sa njaboot jëm ca la sëriñ Tuubaa digle ñu ne ca kooku moom jar naa ne noonu de duñu ko niñ koy defee ci bu àddina bi moom xaj na bëri waaye nag ku woo ci beneen bu mel da nga ci gis moom fas yéene dénk leen suñu bopp di leen jox xamal na nag muy guddi muy bëccëg bu ngeen wooyee lépp loo xamee ne bi yéen mën nañ ko ca baax xam nañ ko ca danañ ca jiim suñ kemti laal kàttan di soñ suñ bopp di soññ ñëpp ñu gën a góorgóorlu suñ kemtilaal kàttan sëriñ tubaa mi nu yaakaar dafa woon maam Cerno Birahim na ko Cerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko damay bëgg a tukki tukki bi may tukki nag dana waroo ak yi ma daan def su ma leen wanee juróom fukki at ñett ngi nii taxaw temm ngir jële fi ñett su boobaa dootu leen gis ñett mu ne ko Mbàkke mu ne ko tubaab baa ngi taxaw temm ci jële fi lislaam koo wax fi mu ne ñu ne la droit de l'enfant droit de la femme droit de ceci droit de ça mais quel la leur kon tubaab bi taxaw na ndax l'islam daf nu sant du lu la neex def du fu la neex dem du lu la neex wax du lu la neex lekk ñu indi ñu benn mot la démocratie c'est la liberté lu la neex defal fu la neex demal lu la neex waxal loo neex lekkal kooku mu ngi lay génne ci lislaam kon nañ ko moytu mu ne bu boobaa xaalis dana fi jële liimaan jigéen dana fi jële lixsaan ne bu ñett yooyu taxawee boobaa dootu leen gis doom ju gën baayam dootoo dégg dana dàq daaw ci man te muy dëkk te ren lim am moo ëpp la mu amoon daaw waaye du sant alal dana bëri waaye du ngeen am jàmm ndax du ngeen bëggan kenn ku ne ci ñun ma ngay lu lu ñaaw ca morom ja xool pour wax ko waaye du xool mukk lu rafet la mu def buñ ne Birane mii li mu def tey jii rafet na duñ ko publier kenn du ko wax waaye buñ gisoon tey jii mu taxaw fële ak ñu ne waaw moom bu subaa kenn ku ne biir te ne Birane na nga ci li barante la loolu nañ ko moytu li xewit gone yi yéen sëriñu daara yi am ngeen ci responsabilité bu mag bu ngeen war a taxaw ponk lay romb sol juróomi tubéy lépp nga ne ci biti bu njëkk day ñun dañ daan boo masaa maître bu nekk bu masaa laaj ay elawam ku ngeen kenn ku nekk quelle leçon bi doon ñii danañu tudd Serigne Touba ñii danañu ñii danañ tudd léegi nag koo xale boo laaj koo bëgg a niru mu ne la footballkat ba mbërëm làmb ma waykat ba fàtte na la mu doon loola ca tubaab bi taxawoon ci ngir fay lislaam ci loola loola ca bokk kon ñu moytundi ko sunu kemtilaal kattan képp koo xam ne bii nag bàyyiwoo ci di wàcce tubéy ja nga sol muy la nga jiital di feeñ la nga xane bii mooy la ca gën a tuuti ca lam lay wàññi mooy bala nga am 40 moom buñ la joxee jigéen doo ca man dara kon nañ ci moytandiku nañu góor góorlu ci sunu kemtilal kattan ci ndigali sunu borom yi teem seen lii nag ci li sëriñ bi santaane rek la waxtaan ak askan wi di leen teg ci yoon di leen jubbanti di leen wax li leen di jariñ ndax nit moom bu wérut amul njariñ waaw xam nga yii bi ñu koy def dañu amoon projet ne dañuy def set setal bëgg a def tam nébulisation nébulisation nébulisation mooy maanaam léegi soo bëggoon dara sa amatul nébulisation moo am ndax léegi poudre bi waa service di set dañoo wax ne léegi poudre bi yooyu dañ koo tul ak gunóor yi ba tax amatul njariñ te gis nañ tamit ne bu ñu ko defee mu taw moo bañ koo def ñooy yem ba tax léegi dafa am ay produits produit bu tudd pérical cent xaw ma la moom moo am pérical 456 léegi moom moo am nga xam ne litre bi 14000 francs lay jar ñun moom lañu programme woon pour def ko ci dëkk bi dañ ko programme woon def ko gaawaan escale mais bi ñu ci waxee ak kilifa yi ñu ne loolu day gàtt foog ngeen boole ci dëkk bi yëpp loolu sax li ko tax a gën a sooxe loolu ci la bokk ndax programme wuñu woon pour def ko mbàkk yëpp dañ ko yemale woon rek gaawaan escale kilifa yi tamit dem nañ ci ñoom seete leen pour ñu jàpp ci waaye xam na yàlla dogalul dugal nañ ci seen loxo dugaluñ ci dugaluñ ci seen loxo ba tax loolu moom dañ ko dàq mu nekk ay procès yoo xam ne léegi ci suñ kanam la nekk moo tax ñu defoon set setal bi ñoom bu ñu paree set bi ñu ne léegi dañ def conférence bi yéen nit ñi ci malade yi tey yu mel noonu ak yeneen feebar yi nga xam ne tam dañ ci war a yee nit ñi ak di ko gën a yaatal ci koñ yi di seeti jigéen ñi ñu ngi koy def waaye dañoo bëgg tamit di ko yokk yooyu mooy projet yi nga xam ne daal nekk na ci suñu kanam. jëf ji solo ji ñuy appuyer lu dul ay doomi Mbàkke ñu dëkk Mbàkke xaj na li ci ëpp nekk ñu Mbàkke am na ci nag ñu nekk ci dëkk bi ñoom bi leen ko waxee vraiment dugal nañ ci seen loxo rafetlu ko xam ne lii moom lu baax la. loo xam ne tamit lislaam nangu na ko te du politique dara taxu koo jóg lu loo xam ne ci askan wi la jëm ñoom ñu dugal ci seen loxo dafay bañ a lim nag lim xam nga xañ na doo matal moo tax tudduñu seen tur waaye kenn ku nekk mënoon nañ tudd seen tur ñoom moo tax ñu leen di gërëm di leen sant vraiment ñoom ñoo si jàpp bañ mën a def lii daal. ñun fan yii yëpp depuis lundi ba léegi ñu ngi ci suñ programme yi di ko wëyal def nañ fi deux jours de set setal. tey nag bëggoon nañ tamit def comme ni mu ko waxee nébilisation bi d'ailleurs avant-hier la waroon a nekk mercredi bi mais ni mu demee moo tax xam nga dëkk bi dafa xaw a doy waar moo tax mujjuñ ko def ba tax na ni tey ñu ne nañ def conférence bi du tee nag dinañ ko def mais comme ni ko tubaab bi di waxee rek reculer pour mieux sauter dañuy toogaat ngembaat suñ bopp ba buñ egsiwaatee rek dinañ mën a demaat loolu moo tax mu taxaw mais dinañ ko eggale incha allah fan yi balaa nawet bee jeex bëgg nañ ko ci. maladie yi nga xam ne doon nañ ko sensibiliser si nit ñi sànq huit maladie la jàngal nañ ñu ko benn bi tetaanos tétanos néonatal la moom dafay dal xale bi nga xamante ne nii ñetti fan la am ba jàppu ñaar fukki fan ak juróom-ñett li koy joxe nag bokk na ci wayjur wi bu yàlla defee ma wan na lor. bu demul kër docteur di topp wér-gi-yaramam ak wér-gi-yaramu ki nga xam ne moom la àndal ak tamit bu waree mucc mu war a dem kër docteur mucc jee tey maytandiku di dem di mucc jee ci mag ñi ci koñ bi bokk na ci li koy joxe di fexee mucc jee kër docteur yàlla dina ko ci musal waxtaanee nañ fi tamit jàngoro juñ naan choléra muy dal xale yi ak yenn mag ñi sax da di dal te loolu li koy joxe mooy ñàkk set waaw moom too demee woon ak doo raxasu ba set ak yeneen ak lu ci mel ni rougeole ñu koy wax ngas ak lu ci mel ni poliomyélite ñu koy wax feebaru lompoñ ak lu ci mel ni méningite ñu koy wax feebaru jàddaaral ak tamit lu ci mel ni Ebola waxtaanee nañ ci juróom-ñetti maladie yooyu ba ciy jaare sangalante bi tamit bàyyi wuñ ko ci. maanaam juróom-ñetti feebar yooyu boo gisee ñu tànn ci ay comité di leen ko waxtaanee kër docteur dafa xool ne. daanaka jàngoro yi ñuy traité yu bëri moom da cee bokk te dafa gën a sonal te buñ leen ci waxtaanee ak ñoom ñu gëm am na jumtukaay yoo xam ne bu buñ ko doxee ci seen kër du jar mu leen di dal ba ñuy dem kër docteur te jaareel li muy faat dafa bari surtout xale yu ndaw yi ak jigéen ñi nga xam dañoo wan noonu lor bay doogoo am gone moo tax ñu bëgg ñun ñu tànnoon ñu ñu nekk ay relais comme ni ko docteur waxee sànq bi muy jël parole nekkal ko ci kanamu askan wi fi mu munta egg ñun ñu fexe ko fa eggal ba loolu noonu ñun ñu mën leen a prévenir ba loolu du leen dal mbaa bu leen ñu ci seetloo tuuti rek bala mu leen di gañe ñu mën a daw daaw dem kër docteur même kenn si ñun rek bu ñu ci gisee wax ñu ko rek ñun li ci war yépp dinañ ci taxaw ba yàlla def ci jàmm. liñ ci ciblé nag bokk na ci xale yu ndaw yi ñi am ñetti fan ba am fukki at ak juróom ak jigéeni wérut yi ñoom ñooy cible yi principal yi jamono ji.